asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi tedd yi noo ngi leen di nuyu di leen ziare yéen ñi seetaan Bichri TV tey nag ku ñu gis tey ñii kër sëñ Amsatu Mbàkke mu sëñ Abdoul Ahad ngi taxaw ak pdf Pape Djibril Fall mi nga xam ne mooy sunu député honorable député Pape Djibril ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la ci bis bu tedd bi dañu leen njëkk laaj mooy say tànk ci yow dëkk bi ak say tànk ci kër sëñ Amsatu ak bis sëñ Abdoul Ahad bi ak loo ñuy jàngatale jëmm ju màgg ju tedd di leen gërëm bu baax di leen sant di wax ne tey bésu ñaan la bésu fàttaliku la bésu mbégte la bésu sant sunu borom la tamit ñu ànd ci ak kilifa yi nga xamante ni ñoom lañu àndal suñ ci limee sëñ xaadim silla rek mu doy sëkk di kilifa ci kër gi di doom ci kër gi di jarbaat ci kër gi ay bàjjanam doon ànd ak Cheikh laxaat di liggéeyal sunu borom di liggéeyal Serigne Touba ba ni sëñ ab laxaat delloo wuy ji sunu borom subhaanahu wa ay bàjjanam woy di taxawu liggéey boobu ànd ji ak kilifa yi ñu ci àndal yëpp tey ñëw fii ngir fàttaliku ak barkeelu ci jëmm ju tedd ju màgg jooju di sëñ Abdou Lahad euh, nga xamante ni kenn la ci taarix ci contemporain ci ci ci sunu jamono amal liggéey bu am solo nekk tamit source d'inspiration ndaw yu bare bare bare bare inspiré ñu bari ci taxawaayam ak yitte boo xamante amoon na ko ci ñi nga xamante ñooy ñëw ëllëg waaw loolu moo tax tey jii ñi gane àdduna te fekkuñu ko fi ñoo ñoo ko gën a bëgg ñoo ñoo koy gën a dund sëñ Amsatu tamit euh, nekk kenn ci jàmbaaru sëriñ Abdou Lahad yooyu euh, gis ñëpp gis nañ taxawaayam ñëpp gis nañ njàmbaarteem ñëpp gis nañ fitam waaw te borom xam-xam bi day wax ne xam-xam bu àndul ak fit dafa mel ni ki bëgg a dund te amul nokki waaw donc ñaari mënuñoo mënuñoo sëñ Amsatu nag loolu moo ñu euh, tax ñu koy bàyyi xel bu baax Euh, xam ne li muy def taxawaay bi muy am ñun ñëpp la ko amal gis nañ tamit yitteem ci ndono Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul loolu tamit bokk ci li tax ñu seq ay jéego tey ngir ñëw saafoonte ak ñoom euh, nemmeekonte ak ñoom waaye barkeelu ak sàkku ñaan tamit ci lii nga xamante ni bëgg nañ ko te ni nga xamante ni noonu la Cheikh Abdou Lahad noonu lañ ko bàkkee woon la bâtisseur ñu nit foofu la ñu bëgg duñu sos dara dañuy sof rek ci liggéey bi nga xamante ni ñoom tàmbali woon nañ ko euh, def ko ci jëfin bu mucc ayib waxin bu mucc ayib lépp nag ñu teg ko ci yar ak xam-xam ak teggin ak bëgg Sénégal ak bëgg nit ñi ak jëriñ leen loolu moo tax ñu tuddee sunu mouvement les serviteurs. Euh, sëñ euh, Pape Djibril nag doo fi teew ci jamono yi ñu toll ku ne xam na crime yi bari na ci dëkk bi lool insécurité bari na ci dëkk bi lool ñu ngi dégg bis bu set rey nañ diw rey nañ diw rey nañ diw loolu nag Pape Djibril nan ko ko jàngate ak tolluwaay boobu Sénégal tollee naka lañu war a taxawee. xanaa ñu defaraat toogaay bi rek li Serigne Mountakha doon wax ne ñëpp nañu defaraat seen toogaay. ñun ñëpp nañu defaraat suñu toogaay waaye niveau de responsabilité yi dañu wute kenn ku ci nekk état lan moo ciy responsabilité ba ci citoyen bi lan moo ciy responsabilité su ñëpp yemee responsabilité nag àdduna tukki nit ñi mënuñoo yem responsabilité kenn ku ci nekk ak niveau bi nga am ci responsabilité état dafa am responsabilité dem nañ sax ba nekko ko yow yaa amee le monopole de la violence légitime ñi ne ko yow yaa yor wàllu sécurité ñu dénk ko ko ñun ñëpp ñu bàyyi suñu sécurité dénk ko ko sécurité boobu bu nasaxee nag war nañoo taxaw def jàngat seet taxaw seetlu ci contrat social bi nga xamante ni moom moo ñu lié éducation santé sécurité responsabilité état la waaw prérogative la mu taxawu ko ñeneen ñi mën nañ ci am seen yéene waaye moom moo ko war a taxawu kon ñu leen di fàttali ñoom li nga xamante ni moo tax ñu fal leen li la fal nag soo ko fàttee li ciy tegu ñëpp xam nañ ko loolu nag bokk na jël tax ñu dem assemblée nationale ngir fàttali leen ko ndax jamono bu tollee fii doon nañ ci xaar commission en charge bi nga xamante ni ci wàllu assemblée nationale mooy bàyyi xel ci wàllu sécurité yooyu ñu woolu ministre de l' intérieur laaj ko ay question déglu ko loolu lañ doon xaar ci moom. te jàpp nañ ne réew dañ koy péncoo kenn du ko pàccoo donc faaw ñu koy waxtaane ngir lii am ñu fexe ba mu deñ jërëjëf Abdoulaye sant nañu bu baax jërëm ngi lay ñaanal suñu borom mu sàmmale te aar la si yéen ci réew bi jërëjëf jërëjëf.